ak ci jëf yu baax te bu ñu bàyyi suñu ndaje yi ni ko ñenn ñi di defe waaye nañuy nàddante ci ngëm di ko feddali fii ak yéen a ngi gis bi bisu boroom biy jub si gannaaw ba nangoo xam dëgg ba noppi bu nu teyee di def bàkkaar kon sarax dootul am ngir bàkkaar yooyu bu nu defee noonu dinanu tiit di xaar àtte ba muy taal bu yanj